parce que récemment gis nañ euh, ni yi dañu commencé waat grève yi euh, grève bi métti na depuis boobu muy def ay grève daje nañ ki nga xam ne moom mooy euh, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo amul amagul ngi leen di seen liggéey question bi nga posé ki crise secteur enseignement bi ak grève yi. Euh, question bu am solo la parce que ñaata at a ngi nii daanaka ni Sénégal amul année euh, scolaire bu stable ak li enseignants yi di wax quantum scolaire bu normal ñu jàngale ko maanaam volume d'heure bi nga xam ne moom lañ prévoir ça fait des années Sénégal nekkul dans les normes ci wàllu bopp loolu échec la kon ñu ngi coow rek di wax mais secteur euh, enseignement bi mi ngi daanu ñàkk niveau bi ñëpp gis nañ ko université Sénégal yi fi nekk euh, boo xoolee boo ko comparé ak euh, standard ak yeneen université euh, même ci sous-région bi sax ak Afrique de façon général classement bi baaxul waxuma la nag feneen ak feneen kon loolu yëpp vraiment problème yu doy waar la li ci doy waar nag mooy ngay gis gouvernement bi toujours def nañ nangam ci milliards def nañ nangam ci milliards loolu moom war nañ xam ne manager benn secteur du question rek def ci xaalis def ci xaalis bien sûr c' est c' est incontournable mais surtout relation liñ efficacité bi nga xam ne relation la entre résultats yi ak moyens yi maanaam yan résultat lañ am réellement ak moyens yi ñu ci def est ce que waruñu woon am résultat yoo xam ne moo gën a baax loolu sur le plan quantitatif ak sur le plan qualitatif donc du question rek def naa nangam ci ay milliards mais euh, nan lañ ko defee ak euh, yan priorité lañ def ak tamit euh, fan lañ ko def Euh, ci personnel bi lañ ko def wala ci qualité enseignement bi wala ci euh, tabaxaat ay école et cetera kon loolu yëpp lu jara euh, bàyyi xel la mais quand objectivement li ñu gis mooy secteur bi dafa nekk en crise et particulièrement condition de vie enseignants yi dafa nekk problème bu rëy te injustice am na jëm ci ñoom parce que ay at ngi nii gouvernement bi di jël ay engagement bañ ko respecté te président Macky Sall en particulier xamoon na loolu xam bu leer nañ ba bi muy ñëw wax na ni man dootuma signé loo xam ni sama gouvernement du ko mën a régler au plan budgétaire maanaam pour wane ni il se distingue de son prédécesseur nga xam ni Ablaye Wade da doon signé lu ko neex ak nit ñi te budget bi du ko attan wala en tout cas du ko mën a respecter kon président Macky Sall mënuñ ko pardonner le fait que euh, mu bañ a respecter ay engagements yu gouvernement am signé depuis son premier mandat euh, ñaan nañu njekk enseignants yi plusieurs fois société civile bi dugg ci euh, kon nag euh, loolu faute bi d'abord c'est au niveau euh, du gouvernement et du régime du président Macky Sall depuis bi mu nekkee au pouvoir injustice bi ñuy teg tam enseignants yi man xaw ma fu ñu ko teg parce que tey boo déggee ñu ne wuy magistrat yi dama koy faral di dégg. parce mi ngi noonu. mais biñ leen mais xool mais xoolal irresponsabilité boobu ak manque de respect par rapport ak secteur boobu nga xam ne c'est un secteur crucial dans l'émergence entre guillemets wala le développement d'un pays mooy li capital humain. léegi mooy li ma doon wax sànq da ngay dégg ñuy fay salaire yu baax ak ay prime ah ay per diem euh, fay ko yenn koor yi tey may stras yi. ñu nekk impôt domaine ñu nekk ministère des finances euh, douane et cetera daanaka ñu ngi fay ci biir xaalis waaw cinq cent mille euh, et quelque euh, ci loo xam ni du ñu apporter dara le pays donc gis nga parce que rek jaboru ambassadeur lañ mais sinon amuñu benn mission publique voilà loolu nga sañ ko def ci réew léegi nag ñi nga xam ne dañuy jàngal ay quatre-vingts élèves ci benn classe tous les jours Euh, ak conditions yi ni mu méttee léegi ñooñu lu jëm ci ñoom rek ñu sàggane ko bañ a seen engagement wala bañ leen a jox loo xam ni mën na sedd seen xol ci wàllu ci wàllu payoor loolu euh, gàcce la ci réew mi c'est une honte nationale mépris la boo xam ni gisuma fan lañ koo teg te war nañ ko euh, lijjanti grille salariale bi dafa injuste ñëpp xam nañ ko mais bugguñ ko régler def nañ ko audit ñoom woo nañ fi cabinet fay ay xaalis bu dul jeex bu xaaj ba pare jëlaat loolu rangé ko tiroir ne dafa sensible parce que suñu laalee fii xaw ma lan suñu laalee fii un gouvernement qui n'ose pas rétablir la justice entre différents secteurs de la république kooku du gouvernement parce que kon ana équité bi ñuy wax te constitution bi wax ko kon nag vraiment euh, euh, su ma déggee par exemple ñu naan la euh, magistrats yi suñu leen fayul bu baax dañuy corrompu douaniers yi suñu leen fayul bu baax nangam nangam ma ne waaw douanier boobu kan moo ko jàngal bind ak liir ba mu mën a nekk douanier le plus grand cadre bu nekk tey inspecteur impôt domaine ku ko jàngal bind ak lire ak calculer il ne fait que calculer l' argent mais ñi koy produire di produire euh, ay nit yu mën a jàng mën a bind ak di produire agriculteurs yi et cetera ñoom ñooy produire euh, la richesse nationale en terme de personnel humain qualifié et en termes de de de richesse euh, kon comment se nga bëgg a sàggane ñooñu ci turu léegi que nit ñee suñu leen fay bu baax dañuy am corruption suñu nangam loolu wax dëgg yàlla lu ma lu ma jaaxal la te loolu kon moo tax enseignants yi mais kenn waru leen yedd ci dara mais eh, léeg da nga dégg ay nit oui enseignants itam dañu bëri grève dañu bëri nangam kii wax loolu soit moom du enseignant soit euh, doomam mi ngi jàng extérieur wala nangam nangam loolu rek lay demee waaw réew mi nag mu ngi noonu ñoom ñooy wax mel noonu mais ku xam condition de vie enseignant ak condition yi ñu jàngale éléve yi la preuve mooy tey jii bépp Sénégalais boo xam ne am nga moyen tey sa doom foo ko yóbbu privé parce que au moins euh, daanaka duñ grève ci année bi ba pare euh, classe nombre bi xaw na limité ba pare dañuy fay ay prof yoo xam ni ku ñëwul heure jàngale di di nga ko diggaale ak ñoom et cetera système bu mel noonu lu tax amul ci système public bi parce que système public gouvernement bi faalewul leen donc wax dëgg yàlla kooku échec la ci euh, le régime actuel euh, bokk na ci limu mu échoué secteur enseignement bi ñàkk respecte engagement yi ak ñàkk xool dëgg-dëgg secteur bi li mu laaj ci wàllu humain ak ci wàllu financier ak ci wàll yëpp euh, ñu teg ko ci yoon nekk fi nag di wax émergence ak développement te mënoo régler problème de base bi nga xam ne mooy le capital humain les l' éducation la formation euh, des des des hommes et des femmes kooku euh, vraiment échec la te ñëpp ñëpp nga koy gis mu nekk nii. donc wax dëgg yàlla enseignants am nañ droit laaj seen àq ni ko ñeneen di laajee ak ñi nga xam ni ñeneen ñi nga xam ne ils travaillent moins que ils apportent moins pour le pays ba pare di di nager ci xaalis su mu nekk nii ci réew mi jaaduwul tegul fenn. duñ jugee foofu dañuy dem ci pénitencier yi tamit ñoom récemment tamit ñoom def nañu dëgër tamit ba empêché li nga xam ne moom mooy visite yi doon am biir si euh, biir kaso yi ñoom tamit nee nañ nañu seen bopp si yokk bi yokkal leen ba léegi ki leen jiite sax nekkul pénitencier gendarme la euh, c'est in mooy injustice yooyu am xam nga loolu vraiment pas Ablaye Wade moom euh, daanaka yàq na lu bëri ci réew mi ci wàllu boobu ñëw def ay traitement particulier ci ci ci ci fonction publique bi euh, maa ngi fàttaliku bi mu waxee ni li ma yokk les yi ku mu neexul nekkal magistrat kenn du yore noonu réew kon nag fi mu nekk nii grille salariale bi injustice bi ci nekk moom laa la wax ne dañ ko war a euh, régler donc man gis naa ni secteur yëpp na ñëpp yëkkati seen kàddu wax ne traitement bi ñuy demandé demandé wuñu faveur mais dañu demandé même niveau de diplôme même parcours même nangam nangam nangam Euh, ñu am le même traitement salarial bu amee prime na ko ñëpp bokk ñëpp bokk les sacrifices euh, partager aussi euh, les bénéfices venant de l'État donc loolu man waxuma la sax ay di yedd kenn mais dama naan bu ñu bëggee dëkk bi tegu ci yoon secteur yëpp nañ xool seen grille salariale ñëpp jóg kaas seen droit c'est pas des mendiants saraxuwuñ dara xaalis boobu xaalisu waa Sénégal la Macky Sall moomu ko c'est c'est le budget du Sénégal boo xam ni c'est l'argent de Sénégalais du contribuable impôts yi ak production nationale bi ak li ñuy leb ci suñu tur milliards yooyu yëpp ngay dégg loolu dafa na dellu ci Sénégalais yi dellu ci réew mi kon secteur bu nekk euh, di liggéey am nañ droit wax ne nañ xoolaat traitement salarial bi mu juste le gouvernement euh, et le président en particulier doit être le garant de l'équité de la justice entre les Sénégalais kon Euh, waruñu nangu benn yoon mu am fu muy féete euh, ci wàllu euh, salaire am ñeneen ñoo xam dañ leen di pénaliser te teguñ ko fenn lu dul rek ci bëgg neexal ñi boddi ñi parce que am na ñoom lu ñu ciy wut mais ñun li ñu seet mooy ñaq ak ku nekk niveau bi ngay apporter ak li grille salariale bi wax par rapport ak loolu kon nañu corriger injustice yi ñi nga xam ne ils se sentent pénalisés nañ ko démontrer au niveau de leurs associations de leurs syndicats te gouvernement bi fekk si leen ci li nga xam ni euh, mooy seen àq loolu moo jaadu. waaw bu ñu jugee si loolu nag dañuy dem si politique parce que instant bii politique la Sénégalais di gën a waxtaanee muy li nga xam ne mooy élection législative yi ñu jëm euh, Yewwi Askan Wi ginnaaw bi euh, conseil constitutionnel génnee yàggul ne ñoom mën nañoo mën nañoo bokk si liste départementale liste nationale may na leen corriger mais DGE direction générale

parce que tey jii bu ñu defee vote parlement bi ñu am moo fi nekk pour cinq ans parlement boobu day joué ci lu bari euh, au delà sax du président mooy député yi fa nekk yore kàddu euh, askan bi te député yooyu dañu war a am fulla ak fayda ñu tànn leen tànn bu jaar yoon parce que député yooyu dañ leen a fal comme ni ñuy falee président ñi xamul luy député mooy ñi fi nekk naan man député wu président la wala nekk ci ay trafic ay passeport ak yooyu euh, nee naa leen tout le temps député warul nekk ne poche am la ñuy wut wala guichet la am wala kii mais kaddu askan bi contrôler les politiques publiques di poser ay questions gouvernement bi di def ay enquêtes et cetera et cetera kon loolu lañ soxla kon élection yooyu c'est extrêmement important li ma gis mooy dañ war a fexe ba képp koo xam ni matal nga sa dossier ñu bàyyi la nga bokk ci sénégal yi tànn bu ñu jéem a tànc kenn bu ñu jéem a génne kenn te waxoon naa ko la dernière fois euh, élection boo xam ni euh, da nga ci génne ñëpp ñi nga xam ni Euh, bëggoo ñu bokk ci pour telle ou telle raison kooku du ndam ci démocratie léegi nag euh, man li ma gis mooy euh, nañu permettre ñi nga xam ni dañu am représentation politique ci réew mi ñu xam leen ñu corriger erreur yi nga xam ni def nañ ko sur le plan administratif extra et cetera may leen un délai ñu corriger teg seen liste conforme ñi war a dem élection ñëpp dem élection mais euh, bëgg fi naan ay liste bii du dem liste bële du dem euh, parce que suppléant bi et cetera et cetera euh, j' espère que le conseil constitutionnel aura cette sagesse là de dire que am na yoo xam ni jarul éliminer des gens qui représentent une frange importante de la population et sur le plan politique au Sénégal kon loolu nañ ci def attention bu baax bañ fi indi encore ay tension yoo xam ni jaru ko te mën na freiner réew mi Euh, parce que tey ji am na loo xam ne suñ ko defee moom élection législative ci boppam euh, dinañ seet nuñ koy defee waaye du du yomb. parce que ñoom sax nee nañ ñoom dañoo waroon euh, dañ ko dañ leen ko bañal waa Yewwi Askan ñu leen koy bañal am nañ droit marche. parce que ñoom dañoo joxe comme comme kii nu mu tudd prétexte a mais waa Yewwi Askan kàddu pour wax ñoom nangu nañ mais nee nañ ko vérifier soo ko dugalaat loolu àndu naa ci. pour man démocratie bu civilisée moom loolu la bu fekkee ni dafa am ñu leen njëkk demande foofu itinéraire boobu euh, bés yamul ci benn nañ leen bàyyi ñoom ñu wax préfet mu jox leen le lendemain wala beneen jour euh, loolu loolu. Euh, nga xam ne nga loolu démocratie bu ñàkk fayda ak ñu xamul luy démocratie ñooy doxalee noonu dama koy giseen saay ñun tam nañ def contre manifestation le même jour loolu du démocratie looy def contre manifestation yow kay da nga war a def manifestation boo xam ne da nga am sa objectif politique booy manifester mais doo manifester contre beneen entité politique donc waa benn bokk yaakaar ñoom tamit benn frange politique lañ comme ñëpp su ñu bëggee manifester nañu dem jaar fi ñu war a jaar yëpp et cetera mais parce que dégg nga ni yow dañu bëgg a nga ne ñun tamit nañu manifester jour boobu euh, pour contre seen manifestation loolu ñàkk xam dëgg-dëgg luy luy démocratie la ak droit à la manifestation. waaw bu ñu jógee foofu day ñëw léegi si si kuréel mag mooy ki nga xam ne Macky Sall la jàppale nekk si télé yu am buzz jékki-jékki dañu dégg ñu mu ngi si liste. Euh, Benno Bokk Yaakaar te ñu ñu yelloo dëgg dëgg dëgg jàng am ay diplôme am ay moom ñoo mun ñoo bokk si liste yi léegi qualité qualité politique bi. voilà waaw c'est-à-dire loolu li muy wane mooy que euh, donte woon sax kuréel boobu ngeen wax miinu ma ko góor la walla jigéen. jigéen la waaw miinu ko mais li ma xam daal mooy loolu dafay wane faiblesse suñu démocratie comme ni mu la ko waxee euh, démocratie euh, du rek voter loolu mooy. parti bi ñuy tuddee côté euh, la dimension électorale de la démocratie parti bu ci ndaw la mais démocratie ñi ko gëm dëgg ñoo ko mën a doxal sincérité bi ci boppam gëm na ñëpp am nañ àq yelleef gëm na ñëpp war nañ mën a apporter ci réew mi euh, même ki nga xam ni àndul ak yow da koy respecter en tant que adversaire politique loolu ñi ko gëm fii ci réew mi bariwul donc fi mu nekk nii euh, kuréel boobu ngay wax yaa gën a xam ni tey boo ko laajoon sax tey jii lan mooy budget wala lan mooy nangam ak nangam mu ne ha ha ha waaw léegi nag eh, ñi ñu tooñ aussi mooy parti politique yi nga xam ne ñoom ñooy jéem a nekk fii di coow su bon gouvernance démocratie de députés de qualité et cetera mais démocratie boo xam amul amul niveau parlementaire bu am solo du dem léegi nag nga bëgg présenter population yi comme da koy def ci liste population yi liste la ñu mën a votel nga nga teg fa ay profil yoo xam ni wóor na la ni ñii amuñu seen place ci parlement mënuñu sax lire règlement intérieur bi wala en tout cas euh, mënuñu discuter des dossiers d' international yi ñu war a discuter au niveau du du du parlement loolu tamit parti politique foofu tam ñu ngi tooñ askan bi. parce que Macky Sall gis nañu ne euh, ay ay ay Jibril mu la Macky. c' est un très mauvais message. pour pour pour pour la bon gouvernance euh, pour euh, les valeurs yi ñëpp di coow éthique bi ñëpp di coow président Macky Sall de moom bu defee loolu mi ngi def erreur parce que euh, ñëpp xam nañ ne président Ablaye Wade la ko nit ñi gënoon mere du woon ñàkk tabax ay infrastructure tey jii président Macky Sall yu bëri yu muy def da koy continuer yu bëri ay projet Ablaye Wade lay continuer kon Ablaye Wade kenn merew ko woon ci loolu chantier yi Ablaye Wade moo njëkk wax je Sénégal en moo njëkk am fitu def en chantier xam nga PS moom dañu demoon ba bàyyi réew mi mu délabré les dernières années de président Abdoulaye Abdou dañoo bàyyi réew mi mu délabré waaw dara doxatul ci réew mi tali amatul dara amatul léegi nag kon euh, président Abdoulaye bi mu ne je vais mettre le Sénégal en chantier te effectivement commencé woon na ko léegi nag euh, gisoo même autoroute bi bi mu ko commencé fii Abdoulaye Wade ñëpp naan yii lii dafa cher trop Sénégal attanu ko mu commencé tey ji Macky Sall ñëw di ko continuer kon surtout Macky Sall ci boppam li mu waxoon euh, bonne gouvernance gouvernance vertueuse lu tax mu dugal yooyu parce que xam na ni Sénégal yi loolu lañ doon xaal loolu c' était une demande éthique pas la demande sociale demande sociale mooy li ñuy lekk li ñu naan enseignement mais demande éthique bi mooy valeurs yi justice ak tamit euh, transparence et cetera moo tax président Macky Sall dafa insister woon ci loolu kon moom lu mu lajj foofu rek moo ko tey foofu lu mu fa lajj moo ko tey après euh, laa gis mu dellu ginnaaw ci yu bëri affaire transhumance mu ne waaye sama yoon nekkatu ci di recevoir koo xam ni euh, jalgati na en tant que président de la république dafa waroon nekk au delà de l' esprit partisan en disant que kii même bu fekkee ni sax euh, dafa ne ci man la bokk mais le message que je veux lancer au pays et surtout au jeunes mooy que ni la bonne pratique politique bi ma bëgg une pratique saine de la politique ah des adversaires qui se respectent bëgguma lu mel ni kon kii moom du ko jox cër palais ko fay recevoir Euh, di ko may doole te nag waxul benn affaire en général na ku ñu recevoir sax moom euh, joxaale la un peu les moyens financiers yi ngay demee ci terrain bi loolu loolu rafetul def c'est un recul euh, au plan des valeurs bi nga xam ni ku nekk si ñoom tey bu yëkkatee valeur lay wax. waaw gis nañ ko tey moom mu génne récemment tamit si Jeune Afrique moo travail de président n'est man de. Ah. ci affaire troisième mandat. waaw troisième mandat parce que instant bi du ne moo travail de paysan n'est pas encore assuré parce que am na lu muy xalaat ci ginnaaw. waaw euh, li li li ma gis mooy li ma koy digal man comme ni nga posé question bi euh, damay damay wax ni pour man président Macky Sall euh, li mu waroon wax sénégalais yi mooy lu leen di rassurer ba ñu ubbi buntu fitna ci affaire troisième mandat parce que président Macky Sall xam nga lu ma jàpp. le Sénégal ne lui doit rien tout donné koo xam ni Sénégal la defee léppam amee fi léppam jàngee fi dégg nga eh, génnul sax extérieur eh, def léppam fii nekk fi maire ba ministre ba président assemblée nationale ba premier ministre ba eh, président ba am deux mandats mais. nan la ko Sénégal mën a apporter encore troisième mandat mais kon après tam mu ne jox leen na quatrième mandat pour man fi mu nekk nii moom su su suñ ko nangulee wala mu lijjanti daal ba def troisième mandat kon dina laajaat mandat parce que appétit du pouvoir boobu dara du ko arrêté gëm-gëm valeur mooy tax nga ne fii laa yem mais nguur dafa neex quelque part doo ko yemale mukk sa bopp mais principe ngay gëm loolu la. moo tax kon même bu ñu waxee nii même am na yenn saa yi ma dégg ay nit sax di wax ne waaw mais euh, comme affaire bi dafa xaw a su defee troisième mandat man leen dugg ngeen problème su defee troisième mandat kon tamit ci biir man troisième bi dina waxaat encore ne man je suis jeune dara ma ma am majorité ñu ñu defaat ma am beneen mandat ku koy mën a que day na sur le plan démocratique mën naa ko am ak sama majorité bu fekkee am na majorité par exemple assemblée nationale. kon problème principe la mooy que ni président Macky Sall ah, la mu waxoon yëpp esprit wu. constitution bu mujj bi ak koo xam ni gor nga par exemple lam ca wax Madior Fall lim ci wax Ismaïla Madior Fall lam ca waxoon vidéo yaa ngi fi yéen a ngi ko yore euh, ndaw si nekk ci ki mu jiital ni actuellement ci élection yi Mimi Touré du digee géeg ngeen li mu wax mais ñooñu sañ nañ encore taxaw di jàppale président Macky Sall ci affaire troisième mandat maa ngi fàttaliku Madior yéen a ngi gis kii mu naan Sénégalais yi dégguñu français xas ñu presque daf ñu xas ah su ngeen déggoon français silvisé war ngeen xam ne lii mooy deux mandats bi mooy deuxième mandat vaar yaa ngi fi président Macky Sall tam ci boppam waxoon na ko Mimi Touré tam wax na ko ne affaire troisième mandat kenn ko fi xanaa duñ ma ne Mimi Touré tamit xamul euh, lu xew et cetera léegi nag gis nga ñu bëri ñu ngi commencé di wax ne non mën na candidaté ah. mën na nangam waaw ñooñu mooy euh, ñi ñi yebal mais dama ne président Macky Sall le Sénégal lui a tout donné il doit remettre le pouvoir après ce mand là proprement au peuple sénégalais keneen sénégalais yi ku ñu wóolu jox ko muy réew mi bokk na ci fitna ah ak ci xeeb sa peuple li président Niger ba waxoon euh, faatu na euh, damay defaat par force ñu ne ko lu tax damay yeggal li may liggéey ñu ne kon Niger fii yow rek yaa fi mën a euh, yeggal liggéey bi léegi admettons boo faatoo nag président Macky Sall tey bu faatu woon tey Sénégal day arrêté kon nañ nañ nañ nañ nañ nañ ànd ak dal nit ku ñuul natt bi mu am ci pal ak nguur mais dafa doy waar li ci tubaab bi mën ñun mënuñ ko tubaab dana dem ba mu yàgg sama ne ba léegi bàyyi naa wala lii mënatuma ko waaw mais nit ku ñuul pour mu démissionner pour mu arrêter te fii du affaire sax démissionner Macky Sall presque état de grâce la am def na fi yu bëri yoo xam ni beneen président def na moins peuple bi jóg ci kawam moo tax ma ne la moom su fi jéemee force troisième mandat loolu du ko jig parce que simplement sénégal yi jiwuñ ko loolu te sénégalais yi bàyyi nañ ko daanaka mu doxal léegi nag fa mu mandaam yem boo gisee ñu naan mandat mooy dafa am fu mu yàlla rek moo yamul fenn la mbiram tënkul ci dara mais képp kuy nit bu budul tam kii di nga faatu léegi est-ce que boo faatoo da nga naan réew mi dootul dox yow koy fexeel ba bi nga fi jóge rek nga nga nga nga teg réew mi euh, ci yoon def sa bilan ne lii laa jotoon na mën a def euh, voilà léegi euh, jël leen réew mi ngeen continuer ko léegi Ablaye Wade defoon na ko fi dem na dem ci sëriñ ñi naan nañ ma may ma continuer su su du loolu dans trois mois salaire yi kenn du ko fay yëpp waxoon na ko fi est-ce que tax na loolu yëpp am appel bi mu fi jógee kon africain lu tax ñu yàpp seen peuple mu jaral leen ay guerre civile ak ñaata nit faatu pour yokkaat benn mandat loo xam ne mën naa am sax doo ko fekkee et cetera et cetera donc il doit remettre proprement le pouvoir ni ko sénégal yi joxe woon proprement le pouvoir pendant euh, deux mandats euh, leneen lu mu def ak ku ko digal leneen euh, yaa ngi dugal réew mi ci guute goo xam ne vraiment c'est pas c'est pas responsable Euh, loolu loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. te réunion si rey yu métti yi fan yii gis nga actualité bi ñu bëri ak rey leen ñii dañ leen agressé ñii dañ leen fekk fu ñu doon liggéey léegi ko dóor ba hmm. fajal sa bopp bi. Hmm. waaw fajal sa bopp moom gënul fajal sa bopp gënul lu mu metti metti euh, parce que comme ni ñu ko waxee république buy dox hmm, moo xam. république laïque moo xam beneen république il faut que am ay loi justice tamit euh, su ñu waxee loolu day am institution judiciaire ak ñoo xam ni loolu mooy seen métier ñu koy def euh, dafa laaj ay enquête laaj ay nangam ak nangam kon réew bu silwise noonu ngay doxalee mais fajal sa bopp su amee ci réew kenn mënut fa tudd justice te fajal sa bopp lu ne da ciy mën a dugg daal waaw kon euh, bu fekkee ni par exemple réew mi dafa wax ne ku sàcc. lii lañ lay daan benn citoyen amul droit ne man dama jàpp ne ku sàcc nañ ko rey keneen mën na jàpp tamit kon su amee ku saaga nit euh, nañu lakk këram et cetera xam nga loolu lu muy mujj indi euh, jungle kon nag fajal sa bopp baaxul day indi tamit ay règlement de compte maa ngi fàttaliku benn cas bu amoon Cameroun euh, ndekkee waa ji dafa jàppante woon ak dëkkandóoram rek mu mu mu mu kii ko am lu mu ko jiiñ noonu gars yi lakk kër gi extra bi ñu ba def enquête yi gis ne règlement donc yooyu lay indi mën nga dox ba mu yàgg nii nga gis benn waaye ba di xonk nii rek wala jubóo moom rek nga ne kii démb moo ñëw sàcc sama kër gars yi jàpp ko dóor ko rey ko donc euh, loolu moo tax fajal sa bopp euh, rafetul ci ci ci république ci justice rafetul tam ci l'islam euh, kon lu mu metti metti bu nit sàccee nañ ko jàpp yóbbu ko ci yoon man mi participé naa fii ñu jàpp fii benn boy ñaari boy sukkër ñu nangu portable benn chinois fii temps yooyu maa ngi def footing ci piscine olympique bi ñaari boy romb rek nangu kii bi mais dama taxaw rek yuuxut rek dama dama dama ni dama ni jàpp leen ñaari boy yi gars yi taxaw ci tali bi nii ñu ñëw gars yi tëy leen j'étais content jour boobu ñu jàpp leen yóbbu leen ci police bi fii yu mel noonu c'est très bien mais dóor rey nit ki ci mbedd mi euh, jaru ko maintenant problème mu insécurité bi tamit ñëpp a ñëpp ci war a bokk individuellement yow sa bopp aussi na nga na nga am prudence léegi yenn heures yi boo amul soxla farata toogal sa kër mairie yi nañu gën a xalaat ci affaire euh, sécurité bi état bi tam na ci gën a def euh, moyen ñu gën a sensibiliser nit ñi ci wàll boobu parent yi tamit aussi bien tey sa doom gis nga boo sàgganee ni nga ko war a taxawoo ni nga ko war a jàppalee ni nga war a di waxtaanee ak moom ba mu nekk bandi di reyaateeg di di sàcc euh, yaa ngi tooñ société bi mais tamit nit ñi dañuy waxtaan ci biir quartier bi problème yi am ñuy anticiper ah association yi quartier yi nañuy waxtaanee problème sécurité bi am na ay daayira am na association de femmes de jeunes ah nañu gën di waxtaanee question sécurité boobu bu ko defee plus ñu koy waxtaanee plus ñi nga xam ne dañu bëgg nekk di agressé ak di sàcceeg yooyu plus ñuy gis ne ambiance bi favorable pour ñoom parce que ñëpp a ngi ko def yitte di ko euh, di ko waxtaanee hmm? ñàkkum xëy bi aussi def ciy joué que jeune boo xam ni am nga vingt ans vingt cinq ans amuloo soxna am nga ay soxla yoo war a euh, lijjanti. Euh, mais euh, soo deful nag nga ne xaaral ma jéem a seet loo xam nii moo gën a gàtt wala moo gën a yomb te fekk ne au contraire euh, mën na la indi problème boo xam ne du jeex du xaaj ak tamit suñu suñu culture parce que xale bi dëbb daaxee ay ngeen baal ma bi dëbb ay paaka ku jigéen kooku bu yàggul xam nga kooku train de vie xam nga kooku affaire ay sama ngénteeg loolu tam suñu mentalité suñu culture tam dañu war def suñu autocritique parce que fi mu nekk ni paraître ngistal bi te man sama yaram dafa daw parce que biñ ma nee malgré que ñu ngi ko yóbbu ci terrain pour reconstituer yaay jaa ngi def ngénte gi waaw boobu temps yaay jaa ngi ngénte boobu laa nekkoon xale bi ndeke effectivement ñii ñoo ko mettre la pression parce que yow sa doom yow jigéen bi ko jur sa doom ñu ne la jam na nit paaka ba mu faatu beneen jigéen comme yow mi yaayam ba pare police jàpp nañ ko ba yóbbu ko ci terrain bi ba mu reconnaître ci semaine boobu yow ngay ngénte pour ñu delloo la li nga joxe ak sol lu rafet ak euh, ma ne bis boobu maire boobu dana toog bis boobu di reetaan ak nit ñi mais mais mais c'est la fin du monde ma bi ma gisee loolu dama ne c'est la fin du monde ku gis lu mel nii. kon nag nga xam ni kon effectivement xale bi li mu doon wax kon effectivement ay mbokkam ñenn ñi de en tout cas démontré nañ ni xaalis ak adduna moo leen jaral lu ne waaw comme xale boobu tamit euh, train de vie ak tamit euh, mën naa def ngénte bu neex sol jesner loolu tamit Sénégal fi mu nekk nii actuellement daanaka boo wanewul yenn yi bokkoo. kon bu la yàlla dimbaliwul rek euh, nga dugg ci yoo xam ni euh, fu muy mujjee ak yow du du baax loolu itam nañ ko gën a waxtaanee parents yi di ko waxtaanee ñu bàyyi ngistal bi ñu wax ne ñu nañ nekk gor di dund euh, avec à la hauteur de leur moyen propre et cetera waaw. simplicité Sénégal moom simplicité bàkkaar la fi léegi daanaka daanaka simplicité xoola ci ci ci wax ak ci colka dafa fi nekk nii bu fekkee ni da ngay wax li nga xam yam ci ñu xamul dara nga rëy làmmiñ di wax lu neex. waajangoog ngay sol lu ne ñu ne waajangoog te fekk li nga yor dara moomuloo ko ci lépp ay tappale la loolu tam nañ ko seetaat nañ ko seetaat dañuy wax si Farba Ngom Farba Ngom nekk ki nga xam ne moom mooy euh, géwélu Macky Sall hmm. conseil la sax laay wax hmm. ñu ñu sàcc seen këram huit cent quatre-vingt-dix hmm. millions en tant que Sénégal nu mel nii mu méttee nit ñi am problème lekk am problème naan benn nit dañ koy sàcc nan nga gisee war dañ ko yóbbu CREI OFNAC war na ko euh, euh, parce que loi réew mi euh, mayewul nit mu yore liquidité bu toll noonu ci ci ci këram bañ koy sàcc kon nag loolu bu rëy la lu mel noonu boo ko bëggoon déposé banque fii sax am problème il faut ay justificatif yu jeex du xaaj waxuma la nag nga koy denc sa kër. kon nag euh, ñaareel ba moom euh, fan la demal réew mi ban entreprise la yore et cetera et cetera ba mën a générer xaalis boobu waaw. caay waay caay waay moom moom këram moom këram moom trésor la finalement mi ngi bëgg a doon trésor public këram. waaw wala banque. mais lu doy waar la euh, bu dee réew mu normal lii war mun mooy li ma la wax nii te par lu mel ni su xewoon ci réewu tubaab bi nga xool ci 24 heures yi kooku moom dina am problème. tey ji buñ ne la woon tey France nii benn ministre fekk nañ këram waxuma la ci ay millions fekk nañ këram 10 000 euros yoo xam dañ koo sàcc këram kooku moom wax waaw waxuma la ay centaine de millions xam nga souvent dañ koy wax nii xam est-ce xam nga ñu tey ji suñu président Macky Sall est-ce que xam nga ni moo gën a riche Macron waaw boo xoolee seen waaw seen seen kii seen waaw ak waaw waxuma sax loolu loolu sax mooy loolu sax mën nga wax mooy logistique beeg yooyu mais ni ñu koy waxee encore li ñuy déclarer patrimoine waaw li li par par exemple président Macky li mu déclaré moo moo ëpp doole Macron li mu déclaré gis nga exemple boobu par exemple ma la jox voilà ñoom la ñuy tàllal loxo te ñun suñu gars yi ñoo leen gën riche Macron li mu mujjee déclaré nii mais donte woon ay notkat la ñoom ñëpp dañu jàppee kii mais daanaka li mu yor bariwul la ah. li mu déclaré kii nii te te gars yi bu ñu ci gisoon problème wax ko xam nga foofu voilà. mais lu li mu déclaré lu simple la mais xoolal sunu gars yi fii donc mu ngi noonu loolu moo tax nag sunu gars yi li ñuy déclaré ak li ñu gas denc seen kër et cetera temps yi la euh, Guinée bi ñu daaneele Alpha Condé gisoo ah, waaw kooku ñu dem këram laal lañ fa fekk daanaka genn wàllu xaalisu banque banque bi mi ngi woon këram mais mais africain mais nañ def suñu autocritique parce que tamit dama la bëgg a wax ni loolu loolu tam doo ma ne doo ma ne tubaab yi ñoo ñu mel loo noonu nit ku ñuul. moom dafa war a seetaat digganteem ak pal ak nguur ak alal li ñu ci mel dafa gàcce la nan ngay jëlee ay millions noonu dem jug ko sa kër pour lan de quel droit teew moom yaa nga nekk ministre walla nga nekk président nga xam ne loi bi daf ko bañ te mu jë am benn sénégalais yaa mu koy wax yaa ngi wax nii agression yëpp nii tey ji nga xoolal kooku kooku kooku kooku ñu rey kooku est-ce que est-ce que est sàcc na lu ma 10 000 francs walla 100 000 francs nga gis nag sunu gars yi fii ñuy jiiñante ay milliards di doxantu ci dëkk bi fii depuis depuis quelque temps am na dix personnes au Sénégal yu fiy jiñante ay milliards xam ngeen leen di doxantu fi di dem ci ngénte yi di maye xaalis di joxe ay jaxal ay milliards et cetera ñu jël benn xale dóor ko ci banlieue bi fii mooy li ma wax faj mer parce que parce que ñi gën a baadoole gën a néew doole noonu rek la ñuy ñooñu la ñuy toroxal waaw mais ñele lu ñu leen di tuddee détournement de deniers publics xoola dugal leen ci benn prison ak euh, climatisation ak télévision hôtel ci ku détourner de l'argent public mais nga xam ni kon du ñu dem du ñu dem c'est trop injuste trop injuste donc mel nañu ba ak keneen ku mën a doon ngay wax gouvernement euh, gestion vertueuse ba pare ku la jege noonu ñuy mën a fekk foofu presque un milliard ci këram sàcc ko il y a deux ans ñu sàccaat fa deux cent millions ça veut dire que këram trésor public la wala lan kon loolu nos institutions de contrôle war nañ ko saisir ba pare procureur bi auto saisir wu of nag tamit euh, xoola citoyens yi mën nañ def benn genre pétition am na man xool naa kii OFNAC bi def benn dénonciation collégiale yónnee ko OFNAC OFNAC woo ko enquête ko CREI tamit xam nga dañuy wax ni du lu ñu fi jàppee woon euh, Wade Karim Wade mooy na justifier euh, mais effectivement effectivement parce que nag euh, lu doy waar la donc voilà réew mi dafa pauvre amuñu dara nangam ak nangam ba pare mu ay quelques individus yoo xam ne kenn xamul fan lañ demal réew mi ils n'ont rien fait plus que d'autres gens rek parce que dañuy politique rek entre guillemets politique wuñ sax vrai politique du lii waaw dañuy tappale rek di di di dugg di génn léegi euh, yore xaalis bu du jeex seen kër pour mën di distribuer euh, nit ñi loolu loolu sunu gars yi wax dëgg yàlla loolu moom aqu euh, africain yi dana leen dal torop torop parce que loolu dafa yomb trop te loolu nit ku ñuul ni ko ñemee ci ay ci askanam naar yi ñemewuñ ko tubaab yi ñemewuñ ko dañu ñëw si discours Mbackiyou Faye bi rek bi mu def dernièrement bi fii kii ñëwee euh, xalif bi ne Macky ku ñu faale ñu fa ñu fal la noo jàngatee discours boobu man euh, dafa fekk ma génn dakaar mais alaa kulli li ma li ma mën a njëkk a wax mooy man de li ma xam ci charia ak euh, cëru jàkk ak juma parce que discours boobu ci jumaa ji la. ci am na wax yoo xam ne ak discours yoo xam ne du place juma ak jàkk. place su juma ak jàkk discours yu partisan yu mel noonu euh, amu fa place jàkk wa anal masajida lillah jàkk lu neex yàlla rek ak lu yàlla gërëm ak teggi nga xam ni <coughs> borom xam-xam yi waaw ah, ok waaw ah, loolu nag maa ngi ci sant yàlla xam nga lu tax parce que su fekkee ni imam Ahmed Kanté rek moo ko wax lan ngay gis nga gis sama yenn mbokk murid yi nga xam ni peut-être seen xel moo toll foofu waa Imam Kanté dafa contre yoonu Serigne Touba dafa contre yoonu Mouride nangam ak nangam et cetera mais léegi comme am na yeneen Mouride yoo xam ne ki jël conscience ci ne kii li mu wax euh, la mu ko waxee ak na mu ko waxee ak la mu ca jublu et cetera nekk loo xam ni sax yoonu Mouride ci boppam moo jàngale loolu euh, ak tamit fitna yu mën a indi parce que tey ji même boo jëlee tey Mouride Tidiane yëpp nii mais ñëpp bokkuñu euh, fi ñu askanu ci wàllu politique te xam nañ historiquement gis nañ problème yi mu am yi mu mës a indi gis nañ ko fi waaw. ci wàllu ku jiite benn tarixa wane safar ci euh, kenn ci ñiy politique wala président ba mu indi crise bu rëy ci biir tarixa bi souvent dama koy wax sax comme man damay nekk ci l'islam bi extra damay wax ni tey jii bëri na loo xam ni tey moo xajamal lislaam bi ak xajamal euh, kilifa diine yi seen diggante et cetera du leen lu dul politique kon nag nañ def attention bu baax ci discours politique boobu ñuy importé ci biir jàkka yi ak jumaa yi Euh, pour man déedéet bu dee jumaa la muy Masalik muy feneen euh, kilifa diine yi boroom xam-xam yi ñoo fa am cër parce que ñoom xam nañ lu ñu war a wax foofu ci néegu yàlla bu ko defee bu dee ci affaire politique bu ñu war a wax ci Sénégal muy Masalik muy beneen jumaa borom xam-xam yi bu ñu leen joxee kàddu xoolal ne leen comme président day ñëw <clears throat> wala ministre wala et cetera xoolal waxtaan leen ci bonne gouvernance ci l'islam ñu indi aay yi teg indi xaddis yi teg indi jàngale Serigne Touba teg. sëñ Tuubaa li mu jàngale ci xidma et cetera et cetera loolu doy na éthique de gouvernement loolu suñ ko waxoon kon ñu yedd om politique yi loolu la ñuy xaar ñun ci borom xam-xam yi ak kilifa diine yi rawatina ci néegu yàlla mais pas néegu yàlla léegi ñu def ko léegi benn meeting politique euh, bàyyi kenn parce que xëy na am na influence wala am na lu ñu yaakaar ci moom mu sañ a wax lu ko neex ci néegu yàlla bi alors que borom xam-xam yi toog duñ ko sax sañ a wax ni lii du lu ñu war a wax ci néegu yàlla loolu crise la. crise discours islamique crise euh, institution islam yi rawatina jàkka crise aussi mooy ñi ñi ñi jàng l'islam xam ko ñu njatt leen ah tere leen sax ñu wax lañu war a wax ñeneen di wax ci bërëb yoo xam ni du du du loolu lañ fa war a wax lu mel ni néegu yàlla yi euh, man je dis mbakk yu fay je lui donne le respect euh, que je dois lui mais li mu bëgg wax ci wàllu politique am na bërëb yu ñu ko war a waxee te manqué wu ko na na na dem stade wala fu neex woo ñu ko neex wax politique am doo dégg kenn wax ci moo tax kon mbokk murid yooyu euh, ñaawlu ko ne bien sûr damay ànd ak ñoom 100 euh, pour cent ci loolu day mel ni ñooñu ñëwoon Touba keroog naan dañu fay tawaaf xam lool loolu bi ñu ma laajee loolu la ma ne leen kii képp kuy murid ku xam euh, di nga xam ni li jaaduwul waa donc sëñ Touba résidence surveillée bi ñu ko def moo ko tere mu dem aj Màkka dem ma Madina jooy na ko sax ba bind ko ci ñu baal ma wax bi jooy mais naqari na ko ba mu bind ko euh, daal ne bëggoon naa ko et cetera et kon ay nit bu ñu jógee fële ñëw naan dañuy tawaaf foofu dañ fay jéem a def lu mel ne ajak mel noonu murit bu xam dëgg mooy njëkk moo tax travail boobu déjà de défendre le vrai enseignement de nos érudits kooku loolu défi la ci réew mi actuellement parce que ñi am alal ak <coughs> yore nguur mais fi nekk ñi dañu njatt nitu diine yi pour que ñuy wax loo xam ne rek ñoom euh, loolu la ñu ànd man mii di wax ak yow nii euh, masque point bi fii ci euh, ci ci ci législative yi bi ñëwee seet si ñu ñenn ci ñiy def politique bi ñëwee dama wax loo xam ne ñu bari si ñoom neexu leen te pourtant kenn du wax ne li ma wax du charia wala l'islam ko man sama yoon mais euh, dama ni yéen ñëpp ñun ñoo leen jaboote te foog mu am ñu yore mairie yi sinon seytaane yore ko kon élection c'est normal soit ay nit ñëw ne man maa sant nangam maa war a jiite. wala jël jaasi ne may jiite mu nekkoon affaire doole soit ñu ne euh, nañ ko euh, def jongante ci wàllu politique te loolu moo gën a silvisé te tamit mairie yi bu ko kenn yorul ku koy yor seytaane kon nag foog ñu organiser wu man leen ba jusqu'à présent moo la ma ñaanal leen sax encouragé ne vous êtes même courageux parce que politique dafa metti dem seeti nit ñi defar parti ak metti kon dañ leen war sax respecté man bokkuma ci ñiy xarab homme politique tout le temps waaye du ay tàppalekat lañ ah, léegi nag Euh, kon te tam Sénégalais yi dañu soxla gis programme gis ku ñu ku ñu jàpp ne mën na def dara ci gox bi ñu votel ko loolu laa tàmbaleeg ñoom man leen comme nag yéen ñëpp suñu njaboot ngeen léegi nag maa ngi ñaan suñu borom mu may Sénégal les meilleurs maires yi jig réew mi wala lii rek wax topp ma ci man dama après dama gën découragé oui lii laa wax lii rek wax topp ma ci waaye ah li mu wax ah ñii ñëw fi au lieu que mu ñaanal leen kii gis nga. waaw parce que dañu bëgg a jël discours l'islam bi bëgg ko bëgg ko tourner bitërndi ko euh, te comme discours l'islam tam ay nit ñoo ko yor xam nga aaya bi du waxal boppam xaalis bi du waxal boppam jàngale sëñ Tuubaa du waxal boppam ay nit ñoo koy jàng di ko wax nit kooku nag ngay njat dig ko dara wala yóbbu fi tam ba mu wax yow li nga bëgg maa ngi woo suñu mbokk yi mbokk kilifa diine ci ñu ma ko sañ a wax euh, imaam yi ustaas yi bu leen àdduna jaral ñu bàyyi jàngale l'islam yu wér yu leer yaxu sharia ngir topp gaa yi di defar seen àdduna di ko defaree diine. Euh, man ci benn question mooy euh, ginnaaw Idrissa Gana Gueye bu nga xam ne au niveau international xeexal na wàllu homosexualité. Euh, boobu doon na xeex loolu en tout cas mais dañuy jékki-jékki ci essence internationale ñu gis ay personnalités yu nga xamante ne président de ci pare dañuy jàpp ne ñooñu seen yitte nekkul lu di toppatoo li nga xam ne moom moo di système bu LGBT. waaw loolu Idrissa Gana Gueye moom jaraw lakk di ko encouragé bu baax a baax parce que li mu def yombul parce que la preuve mooy que am na ay moromam yu fa nekk yoo xam ni eh, ñoom ñu ngi topp eh, li tubaab yi bëgg ak seen eh, activité yooyu lu mu laaj ñoom ñu nangu ko ndax koom ak siiw du leneen c'est pas parce que dañ ko gëm mais kon bañ daf lay jaral dara kon euh, ñu ngi koy euh, jaajëfal ba tey encore di ko ñaanal euh, tawfiq ci taxawaay boobu mu nekk un exemple ci jeunes yi léegi nag comme suñu président yi moom li ma la wax rek je pense que démb rek recevoir na Sarkozy saay-saay boobu Sarkozy tëj nañ ko ñetti yoon au moins je ci année bi tëj nañ ko au moins trois fois daan nañ ko au moins trois fois ça m'a ça m'a étonné sax mu libre nii comme li mu nekkoon président je crois que moo tax kii mais tëj nañ ko carrément c'est-à-dire condamnation waaw au moins trois fois te ci lépp ay tappale xaalisu xadafi bi xaalisu élection ba foofu France ak yeneen ak yeneen moo rey lu xadafi ndax xadafi financement bi mu ko diggoon gis nga souvent comme li ñuy wax Afrique dafa pauvre et cetera et cetera mais euh, Côte d'Ivoire ki fa nekkoon boobu moom xam na ñi joxe woon na xaalis euh, Chirac te pourtant ñu dañuy pauvre Omar Bongo bu ñu la waxee lu mu yàgg a joxe France ba ba ba Miss bu mujj bi xaw ma lan Roland ancienne Miss maa ngi ko gis ci presse bi démb ancienne Miss France jàpp nañ ko mu reconnaître ne Omar Bongo moo ko joxoon xaw ma ñaata million jëndal ko foofu benn kii ci HLM yi foofu Paris te xaalis bu illicite dañ gi nii woo ko tribunal moom sax dafa gaaw reconnaître moom ne dëgg la man nangam nangam kon flux boobu ñuy foog ni toujours ci tubaab yi lay jógee di ñëw fii dara du ci dëgg. lu bëri fii lay jóge dem ci tubaab ñu recycler seet lu ñuy def Sarkozy nii Soroskan président Macky Sall recevoir na ko fi tappalekat bu doy waar wàllu jikko na moom sax boo ko ko ci tudd moom kon ñun ndeysaan daanaka saay say àdduna bi dañuy défilé fii bu ñëwee ñu recevoir leen plus facilement que euh, suñu nit ñu baax ñun ndeysaan kon foofu lañ ci toll mais tey jii France États-Unis et cetera ñoom am nañu seen i critères am na façon nit yoo xam ni duñ leen fa recevoir tey jii man mii Euh, bu fekkee Macron dem na ba gëstu samay mbir ba waa LGBT bu France ne ko Imam Kanté euh, ñiy xeex LGBT Dakar la bokk du ma mës a recevoir moomu ñëwee Paris jamais parce que su ma recevoir coow rëy ma ko ci fekk xoolal fi mu nekk ni ministre Papa Ndiaye rek français 100 pour cent la réclamé wul ne sénégalais la de moo tax sénégalais vraiment nañ bàyyi dossier boobu kii réclamé wul ne sénégalais la même bu fekkee ni sax papaam sénégalais la mais xoolal xeex ñu koy xeex noonu actuellement par racisme xool Le Pen ni mu wax ci moom ak ñeneen ak ak Zemmour gis nga kon ñoom am nañu seen i critères ak lu ñuy fonkee nit ak lu ñuy ñàkk fonkee nit mais ñun ndeysaan ñun daal bu ñu yaakaaree ci yow xaalis wala euh, am nga réseau rek euh, mën nga ñëw suñu président recevoir la xàqatay ak yow wan la lépp jigéen bu saay-saay boobu du ñëw na fii baal fii ak Macron nu mu tuddati ndaw soosu rixa naa xum waaw rixa caaxaan ñëw na fii suñu dëkk fi baal fii ak suñu président na <laughs> na koo xam ni du du exemple ci dara du exemple ci dara xanaa lépp luy futteeku rek lu ci xew ci àdduna bi façon futteeku bu xew ci àdduna bi rek daanaka moo ko moo ko initié koo xam kooku amul place fii parce que suñu jigéen ñi du loolu lañ bëgg ko modèle mais mais gis nga parce que dañu yaakaaroon ni dafa leen waxoon ni man sax je me demande est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que dëgg la sax parce que dafa leen waxoon dina indi xaalis pour enseignement bi fondation xamal ñun bëgguñu ko parce que Rihanna ñeme nañ ko def suñu école suñu suñu suñu Euh, kay yi di ko jox suñu xale yi donc euh, mi ngi noonu kook nga LGBT Sénégal position bi ñu ci am nii ah képp koo xam ne am nga intelligence politique war nga moytu euh, tey di fi recevoir koo xam ni dafa laal lu mel noonu waaw ah, loolu ko loolu c'est clair mais ni ma la ko waxee rek suñu suñu suñu président yi dañuy déconnecté ak peuple bi fenn rek la ñuy am connexion ak peuple bi bu ñuy wut nguur lal basan toog dem ci village yi teg ataaye nangam nangam mais gis nga bu jotee ci nguur gi après léegi ñoo xam ni kenn éliru leen ak ñoo xam ni waa Sénégal xamuñ lan la ñuy wut fii ñoom la ñuy recevoir et domage dommage. waaw hmm. muy maanaam wàllu dëru nañ ci semaine am na trois wala quatre. Mm. accident auto mm. yoo xam ne seen borom dañuy faatu. Oh, ndeysaan te saa yoo rombee si tali bi yaa gis policiers yi ñu ngi barricade bi jàpp. Mm-hmm. waaw mais ñoo xam scooters yi dañ leen a wala régulariser wala ñëwoon na scooters yi ñoo bari. Mm. ak ban ban conseil ñuy jox xale yi nga xam ne ñuy dawal scooters yi ci mbedd bi. ndax da ngay gis ne keroog gis naa ne am na bu ma gis boo xam ne ñaar ñu si dee majeur bu sax. Mm-hmm. ay élèves lañ. waaw mm-hmm. ñoo ñoo yor scooter si. accidenté si surtout dafa bëri si tali bi. Hmm. mais chaque jour da gis policier bi barricade tali bi. Hmm. di gën a bëri. dañuy gën sax xale yi ngi wàññeeku bu baax surtout yi ngi rey bu baax ci dëkk bi. Hmm. accidenté bi tey problème bu doy waar la bu triste la man mii keroog euh, depuis jeudi maa ngi diggante Diourbel ak Touba yu mu ne mais bi may ñëw euh, arrêté nañ jam côté Diamniadio presque 30 minutes ndax ay scooters yu nekkoon foofu policiers yi arrêté leen et cetera donc. Euh, pour dire que loolu am na te tam c'est bari nañ fi dañ ci gën di bari sax chaque jour ñu arrivage wàcc et donc loolu c'est clair que lu ñu war a euh, toppatoo la seet ko bu baax a baax première chose je pense mooy régulariser ko dañu war a am des pièces comme tout le monde ni oto bi di amee pièce ah noonu la scooter war a amee pièce xam nga loolu day permettre tey jii scooter boo xam ne tey am nga problème dañ la mbëkk wala dara walla am ko agressé ñu mun a identifier. facilement scooter bi nee naa ne ñi yor réew mi bu fekkoon dëgg-dëgg bëgg nañ sécurité am fi extra extra xam nañ yoon bi war nañ ko mën a def mais leneen lañ tal donc identifier leen kenn mënul jóg scooter ku ko yor foog nga dawal ko ci tali bi kon nag war nañ mën a identifier ñëpp ñu am seen pièce euh, loolu c'est déjà une chose beneen bi tamit mooy effectivement gérer même euh, flux bi ak quantité bi c'est-à-dire ko wax dëgg yàlla ñu xam euh, lan lañ ci soxla ci nombre wala s'il le faut bu amee ay séries yu daw par semaine bi wala jour cetera mais scooter yi danger bu rëy la fi nekk nii pour ñoom seen bopp ak pour nit ñi da ngay gis xale yi nit ñuy dawee ci oto yi donc c'est man kay je me demande toujours yàlla moo ñu defal yërmande mais normalement tous les jours war nga mën a dégg ne mbëkk nañ benn scooter et cetera boo xoolee tali bi rek ni muy mel toujours boo duggee taxi nga gis ni ñu xuloo ak ñoom et cetera kon problème scooter c'est un vrai problème national boo demee itam Jakarta yi ci région yi tamit coow li euh, li fay dee ci nit mais ah, loolu dafa war nekk benn problème boo xam ni justement ministère intérieur ministère transport et cetera loolu laaj na benn lël laaj na benn assise nationale ci affaire transport nga xam ni vraiment ñu xam réglementé façon oto yi daw façon scooter yi daw ak ku ci nekk lan nga war a remplir comme objectif ba fan nga war a mën a daw et cetera loolu yëpp gouvernement bu sérieux moo ko mën gouvernement bu sérieux moo ko mën parce que danger public la danger la pour kii yore scooter comme ni nga ko waxee ay xale yu ndaw jël scooter teg ci tali bi mais am na lu gën a garaaw sax man fii yenn saa yi ma taxaw ci tali fii di waxtaan ak ay nit fii mais xale yi dañuy loué ay 4x4 di romb fii ba une heure du di ko accéléré fii ma laaj benn waay ma ne ko mais scooter di romb fii mu ne ma du scooter ay 4 xale yi dañ koy kii dañu dañu bënn échappement bi di di ko loué xale yi ñoo koy loué bu yàggul ci presse bi gis naa ñaari xale yu mbëkk euh, yeneen xale mais ay mineur lañ te dañu loué 4 x boobu voilà te dañu loué te mineur lañ kon nan comment se ko ay xale mën a dem loué oto teg ko ci tali bi ba mbëkk keneen nga xam ni kon ana sunu ana sunu gouvernement mais ce pays actuellement man je me dis tout le temps actuellement est-ce que ce pays est gouverné ku jóg loué mais réglementation oui réglementation rek moo ko mën régler way réglementation rek moo ko mën régler réglementation ñu définir normes yi et tout dëkk bu civilisé buy dox ci yoon noonu la war a demee mais suñ dëkk yi toujours rek toujours désordre boobu ni nga ko gisee ci secteur yëpp rek suñu quartier yi désordre bi am yëpp commencer ci suñu famille ba ci palais président désordre boobu fu mu nekk ni ku nekk yaa ngi lijjanti la nga bëgg a lijjanti nam la neexee Euh, loolu moo jaaduwul ci réew mi man je dis le pays actuellement est-ce qu'il est gouverné nekk nii dëkk bi mu nekk nii actuellement euh, nan laay fexee nekk député ak président euh, mooy moo yitteel la classe politique. problème kii rek nga xam ne mooy Babou Cissé la Gaynde Balde léegi dañoo xewal ne dañuy def ay réception def réception bu ngande xam nga yàq fa xaalis résilien sa ñu ngi fii Sénégal mu ñoom sax liggéey ñu ngi xool loolu ak. ak charte vie bi ak charte vie bi. Ah, ah def ay réception. waaw mais loolu loolu rafetul loolu rafetul vraiment mun naa question yi may posé sax daf may dolli découragement parce que justement euh, jeunes yooyu di def loolu euh, xamuñu fi réew mi toll ak lu ñu war a apporter jeunes yi ci gën leen jàppale ay ñuy kay tabal keneen ak keneen euh, li ñu waroon gën a jàppale jeunes yi tey mooy ñu gën a fonk seen réew. gën a fonk liggéey entrepreneuriat et cetera alal boobu ñu am di ko yàq foofu noonu yàlla xam na ni tey jii mën nañ ci euh, joxe ay dons euh, former ci ay jeunes et cetera cetera mais ngeen baal ma sax du question dara nii mais voilà man des fois su ma leen gisee comme léegi fi nekk nii euh, ku ci ku ci tekki si ñoom rek ci football beeg yooyu na ngeen seetlu li ngay njëkk def mooy dem takki benn mannequin seetlu ngeen ko mannequin bu weex tàll blonde aux nga xam ni li ngay dépensé par jour pour toppatoo ko rek ak yeneen ak yeneen après man ne ci complexe boobu entre guillemets du ma ko bëgguma tooñ quoi mais parce que kooku jigéen la daal daal mu ngeen bëggante nga takk ko loolu laa bëgg a wax loolu na leer mais am na lu ci la ma c'est-à-dire que wala xaalis boobu ngay kii noonu jigéen yooyu nga xam ne seen train de vie nga xam ne bu dul woon xaalis bi nga yor en tant que nègre nii rek ñu dajeeg ci mbedd mi rek nga sañ a siggi wax leen dama la bëgg a rek doo ko ñemee <laughs> loolu yëpp daf may jaaxal ba pare ñëwaat ci dëkk bi fii ku ci génn fàdd si ñoom buy romb rek jaar ku ci nekk fa mu cosaanoo bu fa delloo ci village am Pikine fii wala village rek gis ne le pays est dans la misère ah moo tax foofu noonu maa Mané wax dëgg yàlla jàmbaar la parce que xoolal fu nekk nii moom mi ngi mi ngi mi ngi defaraat village am ay infrastructure moom laay wax ma ne Sénégal Sénégal est-ce que Sénégalais itam bëgg nañ lu baax nee naa leen bu tubaab benn ONG tubaab bu ñëwoon tey foofu Sédhiou tabax fa benn teen de 5 millions jigéen ñi génn ñëpp tàccu tubaab dafa baax tubaab mooy njëkk a dugg àjjana jullit jullit di baaxuñu. du lo waaw <laughs> loolu ngay dégg da nga koy dégg xoola Sadio Mané ñaata millions la fa investir fi nekk nii mais presque presque ça passe indifférent presque ça passe indifférent donc ñun lu mel noonu lañ soxla ci jeunes yooyu mais man chaque fois dama ko mës a naqarlu euh, suñu xale yi di dem ba ba ba am xaalis ci football wala ci leen lu mën a doon bu ñu dellu see nekk fii euh, dajale xale yu jigéen ñi ci baar yi di fa xeex di di toroxal ñii loolu dama ko mës a naqarlu du loolu la ñuy xaar ci ñoom li ñu xaar ci ñoom mooy lu ñu tanee euh, ci seen askan rek ñu ñu def benn retour de l'ascenseur parce que euh, fii lañ jóge cosaanoo fii et cetera et cetera comme ni ma ko waxee keroog écrivain boobu rek ma ne ko no yow tey jii bu ñuy wax naan dangaa dégg tubaab yëpp fii lañ la njëkk a jàngalee lan mooy papa maman euh, je pense que waaw kon doo boo demee tey ba naan yaa gën a dégg tubaab français yi sax fii fii la tàmbali kon tamit bul bul bul def dara loo xam ni daf daf ñu yàqal dara ñun kon ñooñu man je di dis ku ku dem Londres sax wala Australie di di fa yàq sa xaalis sax moo tax ne kersa la kersa la ba tey sax am nga un respect de la pudeur mais wax dëgg yàlla Sénégal fi mu toll nii tey prix yaa ngi flambé fii tey ah, Sénégal kenn kenn kenn mënutul assuré kii benn sachet le bu ma demee ci boutique bi waaru sax sa gis nga sachet bi déjà ni mu toll li ci nekk ci mais matul genn wàllu sachet bi ci boppam nag la déjà mais sachet bi laal ko nii dara néewu ci li ba pare léegi loolu nga yokkaat vingt cinq bu njëkk ba dañ doon yokk ay cinq francs ay kii léegi par vingt cinq deux cent li waaw nga jéggi tali bi dem fii kii yokk cinquante nga dem fay kii yokk vingt cinq c'est-à-dire que allumette flambé au ñu tal loolu ak lii nar a ñëw guerre Ukraine bi ci suba rek maa ngi dégg tubaab bi naan affaire mën na yàgg te lu muy gën di yàgg affaire famine am na fi déjà xaw ma 15 pays africains yoo xam ni boor la famine ay nit nar a faatu ay Keita Baldé ak ñeneen ñeneen ñoom ñu dara waroon nañ def ne au moins ñun joueurs yi am xaalis yëpp nañ conseiller benn fonds par exemple dem dem dans les banlieues africaines xoolal na nekk sax affaire bu am doole nañ nañ waxtaan ak Eto'o waxtaan ak euh, nu mu tudd Drogba ma waaw am na ñu ma ci xam si ñoom ak ay Adebayo ñu def benn fonds africain ah wax ne les banlieues africaines yi gën a sonn. ñu dem def fa ay dons extra loolu doon gën a rafet mais mais ñun tam on a des problèmes nag il faut ñu def suñu autocritique waa mais tam loolu yëpp tamit dara leadership leadership bu bëgg dëkkam ah te nar koo yor ci yorin bu rafet moo mën a dimbali loolu su ko defoon loolu suñu amoon leadership bu jaar yoon kon tey ji même Keita Baldé wala keneen comme xale la topp am xaalisam rek ak bëgg feeñ loolu dafa ànd ak xale kon leadership boobu ñoo koy interdire mu def loolu danañ ko wax ak moom ba convaincre ko que ni lii jaru ko wala moment bi nangam ak nangam maa leen gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous semaine prochaine incha allah.